waaw ah, xalaat di la delloo nuyu bu baax a baax di ko di la delloo nuyu yaag sa mbokki internet yi di nuyu waa Equivox bu baax a baax balaa ñuy sori nag di wax ni comme ñi ngi dugg ci weeru koor ñi ngi ñaan yàlla lépp luñ ci woor yàlla na yàlla nangu ko lépp luñ ci jaamu tamit yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme weeru koor ci la alquran wàcc yàlla di wax ne yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun ayyaman maadudat fa man kaana minkum maridan aw ala safarin aw ala safarin fa iddatu min kon sëriñ El Hadj noonu la ñu ubi bu baax a baax di sant yàlla nag bu baax a baax bi ñu ñëwaatee fii teew fii daaw ci weeru koor yi lañ fi ñëwoon ñëw nañ tolloon ci waat ko waaw Cheikh Abdou Khafour nee naa la li ma la wax jaam la bu xeebu nekk taalibi nag jàngee Saalum daara Cheikh Mouhamadul Basir jàngee fa xam-xam bi ñu paree nag gëstu yenn xam-xam ci wàllu mbirum lasraar ci wàllu mbirum xam-xamu ñaan yàlla ci wàllu mbirum xam-xamu faj lépp yàlla def na sutura génnuñ Saalum bi ñu koy jànk ak bawal di wax ne Cheikh Abdul Xafour yaakaar naa ni ñu koy yàgg topp dootuñ dootul présenté boppam di sant nag yàlla bu baax a baax parce que dañuy wax saa su nit ñu ne liggéey boo nekk ay at yaakaar naa ni suñu borom dimbali di la dimbali ngay am talak fekkee kon kooku day jaadu ñu wax nga ñuy xam sa jaar-jaar ñi nga xamante ne ñu xamewuñ Cheikh Abdou Khafour waaye Cheikh Abdou Khafour li ma la mën a wax rek muy jaam la boo xamante ni bi jàng na alxuraan ci ndawam nag def na yëfi yëfi ndaw comme ni ko ñëpp di defee comme ni ko taalibe daara yëpp di defee def nañ ko ci anam bi nga xamante ne bi yàlla suturaal nañ ci ba ñëw tey jii ndakaaru installé fii di ci liggéey suñu borom duñ ci dolli sutura waaw Cheikh Abdoul Khafour moom day seet seet moom du gan ci ñi nga xam ne ñoo topp Cheikh Abdoul Khafour yaakaar naa ne waxoon naa ko fii dama koy waxaat ne naa doom aadama bi mënoo ko ñaanal te duggoog moom ci seet duggoog moom ci istixaara ñaare nag dañuy am yu doomu aadama yi di jaawle seet ak istixaara dafa am ñaari façon damay wax saa su nekk ma ne istixaara mënoo ko defal ñaari nit mënul ne kenn nga mën a jëlal istixaar benn guddi parce que guddi gi dana yaatu na waaye nag mënoo cee génn juróom gént mënutoo mënoo cee génn juróom ñaari gént nit ñi mënut nga mën a listixaaral istixaar ba mooy naafila lay doon jàng yenn turi yàlla baati alquran bind sa message dénk yàlla ne yàlla kii nga xamante ne bi yaakaar na ma ci soxlaam bi maa ngi ñaan yàlla nga wan ma soxlaam bi nan laa ci war a mën a jaar bu dee sarax la bu dee jàng alxuraan la bu fekkente ne bii leneen ak leneen la ba tax na ñu ci bëri foofu dem fay taxaw tuuti parce que bari na ci ñoo xamante ne bi ci suñu ñun ci suñu ñun ñi nga xamante ne bi ñooy ñaan bari na ci ñoo xamante ne bi maanaam mbirum ñaan dañ ko xaw a ñàkkal fayda damay wax saa su nekk ma ne doomu aadama bi yàlla da ko bind ci suuf bind ko ci ndox bind ko ci ngelaw bind ko ci sawara loolu nag boo ko jàngoon moo xam-xam ilmu nujuum wala nga jàng lasaraar mënoo dimbali doomu aadama bi doomu aadama bi durant vingt quatre heures bidéwum dafay tourner te loolu tamit dafay jaadu nga di ko xam parce que tey ji boo demee ci tubaab yi da ngay xool dangay toll moment boo xam ne da dugg am fooy dugg xool sa horoscope noonu loolu alquran ko njëkk andi waaye nag xam-xam la boo xamante ne bii nekkul ne da ngay ñëw rek làmbatu déedéet mbir mi du làmbatu foofu nga jàng ko ni ngay jàngee médecine nga dem université Cheikh Anta Diop ñu tegal la yenn yi nga xam ne moom nga maitrise muy journalisme bi muy ingénieur muy leneen ak leneen noonu la amee ci xam-xam yi ci wàllu ci wàllu faj la alquran lépp ngi fi lépp ngi non listixaar dañ koy jàngale dañ koy jàngale ci xeetu fukki xeeti seet am na fukki xeeti seet am na bari na ci yoo xam yenn seet yoo xamante ni bii yàlla reconnaître ko yonent bi sallallahu alayhi bind ko ci benn hadis andi ko ci benn téere dañ ne bokkaale yàlla la te chaque jour doomu aadama nit a ngi ciy bokkaale muy xe muy seetu pettaaw bokkaale yàlla la parce que yàllaa ngi wax ci alquran inna allaha la yaxfir an yushrik bihi wa yaxfir ma duna zalika liman yashaul moom la bari na nit ñoo xamante ne bi ñu ngi bokkaale xamuñ ne sax li ñuy def bokkaale yàlla la moo tax ma ni la bari na yenn méthode seet yoo xamante ni bii maanaam nekkul xaqiqatan nekkul loo xam ne lu lislaam nangu la lu xaddis andi la bu dee seetu ramli la nag maanaam bunti yonent yi ñoo ci ne bu fekkente ne bi istixaara la nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon def léegi nag yu ci bëree bëri seetu ndox yeeg seetu suuf yeeg seetu seetu yépp wala seetu tetaaw maanaam du loo xamante ni bii dagan ne ci diine yonent bi nag sallallahu alayhi wa waxoon na nee na aada bu rafet aada bu rafet mën na ànd ak diine waaye ci kaw nit ñi saytu ko xam liñ ci war a liggéeye lan la li may wax rek ma ne doomu aadama yàlla da ko bind ci ban te ban boobu mu ko bind tey jii munoo ko tey seetal tey gisal ko saraxam liggéeyal ko tey jox ko mu sangu tey wala nga jox ko mu takk tey wala nga jox ko mu nante c'est impossible mënul ne damay wax saa su nekk ma ne doomu aadama heure bu xëyee suba rek dana nekk ci juróom yoo xamante ne bii tey ji dana nekk en forme wala bu bañ a nekk en forme léegi nag loolu ci durant 24 heures heure boo xëyee suba sa biddiw mi ngi circulé ci biir durant 24 heures yi léegi nag loolu pour nga xam ko foog nga bind turu doomu aadama bi ak turu ndayam bu dee waajur wu jigéen la nga def bintu bu dee waajur wu góor la nga def ibnu ci ngay xam kii fi mbiram fi mbiram toll fan la bu dee feebar la dañ ko xam bu dee loo xamante ni bii la mi ngi ci moom te bokku ci moom dañ ko xam moo tax ma ne la bari na ci ñoo xamante ni bi ñu ngi seet léegi te seet gi léegi dañ ko mel ni bitik mbagg seet gi léegi bitig mbagg lañ ko def maanaam foo mën di génn yaa ngi gis nit ku tegi layoom teg ci béy jënam yu xonq te juróom-ñaari pertaawam non déggoo li ma la xam nga dama wax de dama la wax léegi ma ne la dafa am loo xam ne alquran moo ñu ko jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw daal di koy andil ci hadiisil qudsi yu kon tey ji bari na loo xam ne ñun bu fekkente ne bi dañ ko war a def nañu xool ëllëg lim ñu war a jur damay wax saa su nekk ma ne ñi sànni layu yëpp boo waxee ñu ne dañoo ami tuur ñi sànni layu yëpp boo waxee ñu ne damaa am rab te xanaa ni chaque jour damay wax saa su nekk ma jigéen bi nga xamante ne bi mi ngi dugg ci wàllu seet wala yu demee noonu am na ci ñoo xamante ne bi heure bu ñu xëyee suba la ñuy xëy di gént mën nañoo nekk seen sëriñu bopp parce que yàlla moo leen bindee noonu tey ji yow su bopp am na ci nooy doxee rek boo xasee ba julli def say naafil say say nawaafil rek soo ñaanee yàlla lenn nga demandé ko balaa jant bee sax danga ko teg sa bët maanaam mbir mi da nga koy jàng du ci ne samay maam dañoo amoon yi tuur wala dañoo amoon i xàbb wala dañoo amoon i rab man damay xëy toog mbir mi doxatul ma ne xaaral ma dugg ci seet ñi fi dugg ci seet yëpp loolu dafa am lu bari loo xamante ni dama ko te xaaj bi ciy seet yépp ñaare ci ay jigéen ñii seen nañ ba tax ci ñekkuñ ci buumu sëy seen ruq lañu nekk rek sànni seen juróom-ñaari layu maanaam du am loo xam ne parce que comme dañuy déglu dañuy wax ni ñu lu leer parce que li man li tax may taxaw di wax dama ci am part de responsabilité parce que ci li ci géej bi laa nekk. xam nga El Hadj diiran loolu yaakaar naa ni vaare bi mu commencé ci commencé kaa kaan bi la yaakaar naa ni bari na ci sëriñ soo xam ne ñu ma ci doon interpellé di ma menacé parce que ne ma lay wax ñoom ñëpp ay kàccikat lañ am na ci ñoo doon wax mën naa la citer ay tur ñu ci waxoon ñëpp parce que benn bi am na ci ñoo xam ne ñoom ñoo la gën a xam ne du ñu tontu Cheikh Abdou Khafour amuñ ñoom duñ ko def. beneen bi ci jiitu mu yàllay kese yàllay kàcc laa koy wax Moustapha Dramé beneen bi ci des muy sëriñ boobu muuru woon te wax naan Sénégal lu génn sax quart de finale gis nga doomu aadama yàlla dafa bind nee naa la te yemalewul boo nekkee ci sa réew yow lu la yàlla mën a may téye ko ba sa réew am ndam ba pare la reste yow la dama wax ne saa su nekk nag ma ne bari na ci ñoo xamante ne bi dañuy wax ne ay sëriñu tariyàq déedéet du ñu tariyàq tariyàq lañ man chaque jour ma wax ak ñoom loo xamante ni bi duñ ko din kenn duma ci tontu xam nga li tax mun a mën a ko gor dafa moomu heure boo ñëwee bu ñu génnee say waxi démb ak say waxi tey day day méngoo parce que nag dafa am loo xamante ni bi ñun baat bi gën a bon moom la ñuy négliger te dafa xaraam muy fen al ñu ci bëri nag ñu ngi ne waan yàlla yàlla nee na wala damay ñaan ñoo dàq kàcc ñépp beneen bi ci des heure bu moo fi waxee loo xamante ne bi amul génnewaaten baar ma ngeen toogaat ma teg ma ne man maa waxoon kat kàcc naa parce que nit dafay assumer ay responsabilités ñaan dafay ànd ak wax dëgg yàlla dafay wax saa su nekk mu nekk gémmiñ goo masta moyee yàlla boo ca nee allahuma yàlla dégg la yow mii mën ngaa toog ñaan yàlla am na loo xamante ne bii yàlla may na ko amul keneen doomu aadama boo gis rek yàlla dafa am lu mu ko mooñaale tey ji mën nga toog yëg ci sa bopp loo xam ne dalay lenn yow lii sa pas normal ka ngay dem tey jii di ko jéem a peeg tey jii wala nga koy peese yow xam nga sa bopp xam nga li nekk sa bopp moo tax ma wax la ma ne la jamono ji vaar dafa yéex a génn vaar du teeloon a génn konoon dëkk bi toj parce que bari na ci loo xamante ne bi nee naa la kër yi bu tasee seetkat yee ko tas société yi bu amee noonu seetkat yee ko tas kër yi nga xamante ne bii ay mageek rakk a fa nekk ak seeni waajur bu tasee seetkat yee ko tas parce que seet gooy dem mën naa la ko gàtt ku ñuul ko xees ki wala ku ñuul ki wala ku xeere ki yàlla loolu la bind alquran ba mu jet heure bu yàlla waxee ginne rek wax naag malaayka doomu aadama lay mujjee waxal wa isqul naa lil malaayikatu isjudu li aadama lay wax wala xad karam naa bani aadama moom aadama rek doomu aadama lay andiwaat wa allama al asmaa kullaha suma arada ala al malaa'ikati wa qaala addini bi asmaa'im haula in kuntum saadiqin ne yàlla nee na xamal naa doomu aadama loo xam ne ma ko jinne xamaluma ko malaayika kon léegi doomu aadama bi naka la war a mën a ñàkk xeeba di boppam ba xamul ne li ko yàlla jox lan la te nag alquran ji yàlla bi mu koy wàcce daf ne wàcce naa ko ngeen ngeen ci faj seeni jàngoro wàcce naa ko ngir heure bu ngeen jàqee dem bi ko faccee ne jàngoon alxuraan la daan lam daan def ci jamono yonent yàlla Muhammad ba léegi mi ngi koy def sunguf ak reen lam daan def ci jamonoy maam ba léegi mi ngi koy def léegi nag li tax jamono bii nit mënatul ñaan yàlla mu nekk ci fan la sëriñ buy lekk riba mënoo ñaan yàlla sëriñ buy fukk jëf mënoo ñaan yàlla sëriñ boo xamante ni bii yow day hélas da ngay ñëw léegi ma nga génn ma ne ah El ñëwoon na fi léegi de moom moom nangam moomam nangam kooku boo yeboo sànni sa xalima te faw nga am xam-xamu xam-xamu créé muy ni nga mën a calculer tey jii buñ la joxee xaalis noonu ngay toog calculer turu yàlla ak ci fan ci ban jamono la ko yàlla wàccee parce que alquran tey ji ñeent yëpp yii yëpp moom moo tënk alquran zabuur furqaan linjil tawraan moom lañ tënk ci biir alquran léegi nag ci kaw loolu lu ci nekk nag daf ci am 124000 prophètes yi yàlla yónnoon lu ci nekk rek suñu borom daf laa amoon mission bu mu la nii yonent yàlla Muhammad la njëkkee yónni la mujjee yónni te yonent bi bu mu ñëwee daf ñu dégg daf ne ñaan mooy ngànnaal julit addu'a silaahul mu'minin léegi ñun lan mooy suñu problème ba tey ji chaque jours problème yi di gën a bëri ñaankat yi di gën a bëri te problème yi du mun la résolver wu ko dama la wax ma ne la xeet yi nga xamante ni bii ci ngay toog pour nga mëñee nga bañ a ñaan nga ñaan yàlla te du nekk muy ñeent yi ma la wax muy lekk riba doo dugg lu sa yoon nekk muy di nettali muy amoo bàmmeelu béer ñeent yii ku mu nekk ci yow bu yeboo nga dagg sa kurus xam ne mënoo ñaan yàlla waaw xam nga soxna Adji Sarr moom ak Ousmane Sonko comme ni ko gars yi waxee Ousmane Sonko mu sell moom la ko gars yi di dàkkantele damay wax saa su nekk ma ne coow li yaakaar naa ne daaw la 19 février la la la lañ ma ci invité woon ma wax ci ba léegi mi ngi daw nee naa leen feeg nguur ŋànkul yàbbiwul li mu ŋànk coowul Adji Sarr Ousmane Sonko du ma sa jeex te li koy firndeel muy yenn yi nga xam ne ñu ngi ko commencé di ko dugal ñu ne ay fuite la yoo xam ne ñu ñuy génn yu demee noonu waxoon naa ko fi dama ko fi waxaat pour gars yi nañ toppaat vidéo daaw bi ma ni leen Ousmane Sonko waxuma la Macky Sall waxuma la ministre am waxuma la ay avocat am waxuma la ay procureur ku ci bëgg jàmm na nga génne sa loxo ci mbirum Ousmane Sonko parce que xam nga nit ki da nga wax ak moom tey jii du la dégg. gannaaw suba la lay dégg damay wax saa su nekk ma ne baatu Ousmane Sonko chiffre am rek dafa am ñett yoo xamante ni bi ñu ngi koy jàpp te ku ci jàpp ku ku ku euh, kuñ euh, ci sa tur xasa jàpp danañ la dégg ñaareel da nga nekk nit koo xamante ne bi yaakaar na ni suñu borom daf la dana la dimbali ci lépp daf ci bari ñoo xamante ne bi nag boo waxee baatu Ousmane Sonko. ñu ngi xaar chiffre am na ci ñoo xamante ne bi xam nañ suuf chiffre Ousmane Sonko waaye am na duñ ca réere waxoon naa ko fi nee naa la képp koo xamante ne bi bëgg nga jàmb gis nga dossier bi Macky Sall bu ko tegul ci suuf dëkk bi lay taalaat lu leer laa la wax dossier Ousmane Sonko bii dañ cee laxas jaan déggoo li ma la xam nga damay wax saa su nekk ma ne dafa am dëgg la yàlla bëgg xulil xaq walaw kaana murran yàlla dafa bind doomu aadama ngir sutura Ousmane Sonko mook Adji Sarr maanaam lu ci yoonul waa waa APR kon déjà complot bi ñu doon wax dugg na xam nga adversaire politique bi li tax damay wax saa su nekk ma ne boo xoolee Macky Sall adversaire politique am ñi mu doon jonganteel président Euh, euh, élection présidentielle yi weesu yépp da leen a denc muy muy xalifa Sall ak Karim Wade benn seul adversaire moo fi nekk mu Ousmane Sonko déggo ma ne Ousmane Sonko de durant mu commencé wàcc 94 millions yu Mamour Diallo yi la waa APR commencé jëf Moustapha Cissé Lo fi la génn wax fi loo xamante ni bii pourtant mu ngi doog ñu ngi doo xam ne Moustapha Cissé la waxoon nee na leen APR la ca nekk lu loo leen wax rek am na lu ngeen ca bàyyi maanaam complot bi nga xamante ne maanaam dafa leer parce que gor doo ko sës ci miir bi Baye mbay mi génnee audio yi fu mu jëlee audio yi Adji Sarr ko ko jox Adji Sarr fu mu jëlee audio moom moo enregistré Mamour Diallo ak waa ji nga xamante ne bi moo sant mbay te pourtant capitaine Touré daaw bi muy entendre bi bi mu fi dem bi mu fi démissionné ñu ngi doo génnewaat vidéo pour teg ko dama wax saa su nekk ñu ne lu dul dëgg du yàgg xam nga li tax muy Macky Sall usman Sonko dafa yóbbu fitam dama la wax ma ne la APR bu fekkente ne bi saako la saako la wala bërigo Ousmane Sonko vide vide na bërigo bi. boo génnee sa gé sa boo duggee suma ay vidéo xam nga bu ñu déjà bu ñu waxee mbiru xam-xam ba pare ñun ay citoyen sénégalais lañ bu ma neexee dama naan dama far kan moo kan moo ma mën a wax ne dama far parce que citoyen la am naa droit wote am naa yor naa carte d'identité nationale waaye bokkul parce que li problème bi dañu toll moment boo xam ne gis nga coowul Ousmane Sonko Adji Sarr daaw bi ma ciy wax 19 février dama toog la ma ci gis ma wax ko mus entre Moustapha Diakhaté tamit jafoon fi lu ne wengam looloo ma taxoon ñu invité ma ci cadre Moustapha Diakhaté ñu dugal ma ci mbirum Sonko ma wax ca la ma cay wax te la ma cay wax du loo xam ne dama ko làmb dama wax ma ne la Ousmane Sonko danaa wax ak moom ci mbirum. la nga xamante gis naa ko waaye du loo xamante ne bi dañ ciy focaliser wu à 100 pour cent parce que faw ñu dugg ci actualité am na loo xam ne su ma paree man yow bu ma paree ba jóge fi laajoo ko sax boobaa après say mbokki internet dinañ leen kii loo tax laaj ko nangam mooy tey jii mbirum Ousmane Sonko daf ci bari ñoo xamante ni bii ñu ngi nekk ci wàllu mbirum baatin te Ousmane nga xamu leen gisu leen mosu leen a dégg ci mbirum baatin yaa ngi dégg. pour accaparer Ousmane Sonko ba képp ko daal ci moom musiba na la dal moo tax ma wax la man la bari na loo xamante ni bi nit ñi nañ ci def attention ci coowul Ousmane Sonko da Macky Sall bu fekkente ni bi bëgg na jàmm ci réew mi na jël dossier bi tege ko waaw xam nga comme que Ousmane sonk jullit la mooy suñu président ma tegal la ci loolu waaye ñaata sénégalais yoo xamante ni bii ñi ngi doon dee ci Macky Sall tey jii maanaam li ñuy subiir ci ban présidentiel lañ ko mës a subir bu ñu jël ne defar na tali yi wala bu ñu jël ne tey jii andil nañu stade yaa ngi may dégg non non non d'accord naa développement la duñ ko xeeb waaye dafa am lu bari loo xamante ni bi nee naa tey ji ñaata nit ngay gis ñu xëy suba ba ngoon jot bu ñuy ndogu. seen problème lay doon ana gaz say ji amu fi ceeb bi dañ ko yokk lépp dañ ko yokk nguur mënoo matal lépp waaye dama lay wax ne li xewoon ci jamonoy ab Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall mii tey jii nee naa la bu fekkoonte ne bi Ablaye Wade lan moo ko daane deux mille deux mille onze deux mille douze ay ñu mu faloon ñoo xamante ne bi dañoo jàpp alal réew mi di ko pasar pasare saa su ne Macky Sall moom mooy camp bi Macky Sall Farba Ngom la ban lan mooy profession bu Birima lan lan mooy liggéeyam toog te tele boo waxee mu ne man nguura ma teg fii may défendre Macky Sall lu neex nit mu wax na Bougazelli mi ñu fi jàpp loxo ci poos ana mu fu mujj mi ngi toog këram di ndogu lan loolu mooy développer Sénégal te ñëpp ci biir lañu nekk ñu nekk Mamour Diallo 94 milliards bi ko Ousmane Sonko tuddee la APR commencé jëfru non non dafa am ci yenn xeeti doomi aadama yoo xamante ni bi yàlla fi mu leen di denc ci seen i bidéw ñiy liggéey ci ñaankat ñi gën a xam bu baax li ma leen di wax ñoom xam nañ ko maanaam du loo xamante ni bi moom da ko sàkku ci boppam te nag Ousmane Sonko du jaaxil pour ma wax la Ousmane Sonko jullit la xaqan Macky Sall jullit la xaqan waaye ñun suñu nguur yi fii nii ñaata président wala ñaata ministre ngay dem ci cérémonie élection yi mu ñoo jàng Fatiha bu sell Fatiha grammaire yi lañuy jàng yi ñu bind français nii di ko traduire en français ñaata yoon nga fi dégg minute ni mënut a jàng ayatul kursi xayum xayum la fay wax. ñaata ministre nga fi dégg te Ousmane Sonko li ma la wax ma ne nee naa la man xam nga li tax pratiquer bu muy pratiquer alquran. non non non bokkul xam nga aussi kooku ba léegi bokkul sa Seck damay wax ma ne ñi nga xam ne ñoom ñooy gëstu xam-xamu lasraar nañu bind turu sa Seck ak turu Ousmane Sonko ñoo adat ko. maanaam tur dafa am lu koy ëmb. muy rawaxaan ba muy xabban ba muy xuddaam ba te mati li problème bi muy élection législative est-ce que xam nga ne mu ngi ñëw moom lay waaja te bu defu ndànk bu ci essayé rek da koy da koy pouse fii laa la ko wax buy échec di puus élection yi coupe du monde li ma waxoon ci coupe d'Afrique bi rek laay wax damay wax saa su nekk ma ne Sénégal suñu problème mooy xol yi ñoo ñoo booloowul keroog rek bu Égypte ñëwee fii daf ko wane Sénégal bu ñu mànkoo ku nekk nekk ca la nga war a nekk dara mënuñoo dara dara dara mënuñoo jomb bu ñu tu bu ñu focaliser wu ci mbirum mbirum mystique à cent pour cent nit ku nekk yaa nekk Sénégal yaa yore carte d'identité nationale yow bi ne yàlla may na la jëlal turu jour ya nga xam ne mooy adversaire u Sénégal nga toog sa ruq def la nga war a def te bañ koo fésal loolu mooy patriot coupe du monde nag àddina bi ngay dajeel man biir na ma ni Sénégal dana sori fii laa ko waxee biir na ma ni Sénégal dina dina sori xam nga li tax muy dama koy waxee ci cadre sport ba pare non non non ne sori sori bi boo ko weesoo boo match poule de quatre la soo génnee poule de quatre da nga def huitième de finale xaw ma quart de finale ndax dajalee doon moo tax mën na sori xam nga li may bañ wax ne quart de finale lay gis nga yàlla kenn du taxawee palaasam moom fa mooy fa aalu li maa ce que bu ma nee Sénégal dina yegg quart de finale ma xëy suba dee nag. dama ko wax ci cadre sport que man def naa sport maanaam dafa am yenn réalité yoo xamante ni mu ngi nekk ci sport gis nga tubaab yi ni ñuy fu si su ñuy fubalee ak tubaab ni ñuy fubalee bokkul parfois nag nit ki mën na con mën na concentré gis nee naa ñuy wax ci fubal yëpp naan Sénégal day def nangam kenn xamu ci fubal fubal damay wax saa su nekk moo làmba yam ku ci pronostiqué nax nga sa bopp ba 90 minutes la bi trent minutes la parfois football li tax mu doy waar muy jour équipe bu ci nekk ak temps fort Sénégal mën na nekk quatre-vingt-dix minutes nekkul ci temps fort équipe bi mu nekk taxaw di nelaw ku ci am occasion da ngay dugal te nag luy problème li tax ma ne mën nañu sori muy am nañu capacité gi bi ñuy waaj def final dama taxaw ma ni leen képp koo xam ne nee nga yàlla may na la bul génn wax toogal sa ruq nga def la ngay def parce que bu Sénégal amee ndam yow la yow yaa am ndam bi ñu paree dama génnaat ma ne ñi woon ne Sénégal du ñu yegg quart de finale wala du ñu jël ko bu ñu neexee nañ dagg course walla ñu jël seen carte d'identité changé ko def ci beneen dëkk nationalité parce que dafa nekk gàcca dëkk bu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul nekk Seydil Hajj Malik nekk Maolana Cheikh Dame Niass nekk Seydina Issa Ruuhu Laay nekk fi ñuy toog di wuti dara ñu ñu ci njëkk génn loolu gàcce mënu ko weesu defet la xam nga làmb li tax ma ne du ma ci wax muy nekkul loo xam ne dafa dagan ci lislaam tamit nañ ko nañ ko bàyyi xel. maa ma dégg dinañ ci ñëw gis nga komba Modou Lo dafa mystique mystique moo ci ne combat bi nag man am na ñu naan nee nañ ju am dana am ci kàttanu yàlla waaye mystique la combat bi ñoom ñaar ñëpp mystique ba ci Luc Nicolaï moom mi tëgg komba bi ñëpp mu tëgg dañ koo gën a mystique Modou Lo Ama Baldé nekkul loo xamante ni làmb la joo xamante ni ku ci nekk da ngay xeex ak sa moroom nekk làmb joo xamante ni ku ci nekk koye ba nga nekk da ngay wut koo xeexal Modou Lo Bal Ama Baldé kese bëriwuñ de nga xam nga loolu Modou Lo ak Ama Baldé rek bëriwul Modou dafay bëreeg waa waa waa Parcelles waa Fass Ama Baldé di bëreeg Balla Gaye di bëreeg waa rek Eumeu Sène parce que Eumeu Sène Modou Lo daan na ko ñaari yoon làmb sot sotoo la moo tax ku la wax ne la du yomb day yomb waxu la loo xam ne xam na ci làmb waaye nag làmb ji luy am lay doon waaw bari na ci ñoo xam ne ci ngi naan noonu làmb ji am déedéet làmb ji dana am lig Nicolas ñi ñi mu tëgg ñoo ko ñoo ko gën a pare ci làmb ji maanaam ñi lig Nicolas mu tëgg làmb ji ñi mu tëgg ci làmb dañ koo gën a pare ci mystique làmbi mystique la moom bu taxawee dëgg-dëgg làmb ji dana am du loo xam ni mbiru xaalis walla mbiru mbiru mbiru moyen la déedéet làmb ji ku ci nekk gis nga nee naa la dafa am lu bari loo xam ne nit ki ci biddiwam ngay xool sëriñ fàllu Luc Nicolaï Modou Lo Ama Balde ñoom ñépp ku ci nekk nga dëgg gindi sa tur nga ko parce que ku ci ne dafa am mer moo nekk mu nekk sa xel mer mu nekk ci sa biir xool sa face à face yi ngay xoolee ñëpp ñuy wax di kafante ñëpp maanaam ku ci nekk dangay kam camoufler waale sa morom rek waaye bu ñu tëjee barrières yi leneen mooy xew te làmb ji nañuy def attention nañuy def attention ci làmb ji bis buy taxaw yi na takk der yi lu mu lu mu yokk ci ay takk der doyul diggante Pikine Parcelles lu mu ci yokk ci ay takk der doyul naa ne li ñu wax li nga xam ne wax nañ ko mooy l'essentiel wax nañ ci cadre bi nga xam ne ci la ñuy liggéey nit ñi xam ñu ci ay at wax dëgg yàlla yàlla diñ ñu defal sutura beneen bi ci des ci wàllu actualité comme dama ciy wax chaque semaine nag su ma ñëwee yaakaar naa ni daaw lañ ko defoon fekkewaat daaw nañ ko waat ay at di ko fekke saa su nekk waaye du loo xamante ni bi ni ñu wax dëgg yàlla wax nañ pour sottante xalaat aussi wax ci xam-xam ni nag opté li nga xam nga wax ko li nga xamul keneen dem jàng ko xam ko loo rek lañu ci def ah, du loo xamante ne bii vexe eh, eh, am nañ ci benn rëccu rëccu di ñaan yàlla tam lépp luñ fi wax loo xamante ne bii maanaam tegu na ci rek yàlla na yàlla gën koo fulandi bu dee wax nañ ci loo xamante ne bii wax ju ñagas la wala wax nañ ci loo xam ne damm nañ ci yax ci mooy baatu alxuraan wala wax nañ ci wax joo xamante ne bii tegul fenn ñu ngi leen koy jéggalu xam ne matadik doomu aadama moo tollu noonu